Amen. Amen. Amen. kenn man ko mu yegg waaye nag xol yi ngeen di boole te bàyyi werante lii yéen ñi koy liggéey tax ngeen di ko def liggéey bi yàlla nag amut tappale amut naafeex lu waay lu ci waay def yow la fa nekkal ngeen góorgóorlu ba bu ngeen xasee tàmbali bu leen bàyyi na yegg rek te bu bis bu ngeen tàmbulee mbir yëpp day dox këyit yi dana yomb xaalis bu ngeen ci def dana yomb dem fu ngeen bëgg def dana yomb waaye nag buñ ne siñ bi ngeen ngi ñëw dajale te bu ñu laajee koo xam ne kii loo soxla moom koy laaj bu ñu la laajee ci moom da ngay joxe yéen ñi laaj bu leen laaj lu lu diis laaj leen lu ñëpp man boo defee ñëpp am na ñu man ñoo xam ne ñi bu ñu laajee tuuti ñoom danañ def fukk. Mm-hmm. waaye boo laajee fukk ñi mënut benn duñ mën a def dara. Mm-hmm. ngeen defe ko noonu rek. Mm-hmm. dëgg la yàlla leen taxaw. Ah, ah, ah, te may leen ci ndab. mu yàgg ci jàmm. te bañ a yàgg. boobu moom. waaw ñaanal ma bu baax baax baax baax bari. incha allah wallaahi wallaahi. incha allah Mbacke. waaw. si man suuf. waaw Mbacke. ñu ngi sant bu baax Mbacke. moom daal. mu kenn ne kenn ko yor. noonu dañu fas yéene mu yeete rek. Aman